te ma jooy ba faatoo saab sang saab sang dem na mooy ku yaatoo Sëriñ Saaliw wërkat ba daaware te wër ña jiitoo mu xëy nuyoo si Mbàkke du geesoo ay billaay te bu rëy ba nekkoon Tuuba moo yoo ji aljana ciy bisam ba sëriñ Saaliw borom yërmaande ja borom tawit ja ku maandu ko dem na ci sunu waaja wi tay gure gi laay jooy ba faatoo ngir saa wetaloo dem na Sëriñ Saaliwu muy ku yaatoo jumaa yi Tuuba gën a sangu Mbàkke daara yi jooy na Sëriñ Saaliwu bër ma moo am ceeti diine yaa ngi jooy sëriñ saaliw sunu waaja diine di jooy jëmam ja bisu demu makka rekk dellu ku jàng taarix xam ne kooka dellu see donay makka donay baayam ba doon ngir yu rëy mo doon waalim sëriñ Saaliwu xuraan yére bu mag ba jooy naa bar ma ko soxoo daan jàng sëriñ Saaliwu bakke balla la xulaa xasida jooy naa xel koo mu tey mu yooxoo ndayam nga tey mu jooy baatam baa borom nga dem na sëriñ saaliw fekki baay baa na soroon nañu mbër maa koy yem bisam baa bis ba mu nee bërët sëriñ saaliw te ji yàlla ñëpp ba koona faatu wuy ji yàlla bisub aljuma muy julee suba la dal di làqu foofa tey bisam ba ñu dem guddi daañ mbaar ma tuuba te booba mbir ma siiw ba weesu tuuba amul keroog fu nit ña bàyyi koowul ñëpp di daanu ñëpp di yuuxu kenn toogul bisub keroog ñëpp fanaan ni Tuuba di wër barab bay jàng alxuraana ba bët setee demuk sëriñ Saaliu nit ñi yëg xew-xew ba dawut si Tuuba ruxumbër barab di jàng alxuraan di ñaan ay xeewal di jàng ay xasiida Sëriñ moo ko woomal ñaanal Sëriñ Saaliw murit bu mag ba mbooloo ma mel ni soq ngir bisam la dale biir Jurbel ba weesu Kawlax ba Daaru Muxti ñépp di daw si di lux kentalatul ka mu àndaloon ba muy ñëw xanaa xalaat sang ba cey bi xew-xew inna lillaahi lay sa xooba faato kuy dundu faatu li lay ayaato sambar ma laay gis sëriñ ak demam ba faato ngir mooma may lul fu ma tollu yaato Seexinaa yaa ma weetal saajo yi dootu dog dem gi moo ma tiital mbàkke tax sëriñ saaliw se dem gi métti ñëpp yaa mujj toog ci doom yi te yow yaa raw ñëpp yaa tax sos daa'ira ñëw jëbbalaa risaalu yaa tax ñu sos daayira ñëw jébal la yaa tax ñu toog fi nga wax ñu xoolaa màggal yaa ko yeesalaat ak ngëm-ngëm sa ndaw du xiif fu tollu day am jom yaa ndaw ñu mel ni man sëriñ Saaliwu yaa tax ndaw ñi mel ni man di sant ngir yaa ñu may lool fu nu toll yi sant ma jéema lim li mi sant ci daara ngeen xam ne moo di doomi doomi doomi jaara lim def ci ay daara li bëri bëri sëriñ Saaliwu jàng ak liggéey ak julli rek la daaxare Seex Saali wooy ceeb mu tooy te ku bëgg a woomal na nga lu yaatoo Sëriñ Saali wooy ceeb mu tooy te ku bëgg a woomal na nga lu yaatoo mu dàq bay ci réew mi mooy kàng foore am njàngleem amul gëddee ka doole mu dax béy ci réew mi muy kàng foore am njàngaleem amul gëddee ka doole Sëriñ mu dax béy ci réew mi muy kàng foore am njàngaleem Sëriñ Saaliw amul gëddee ka doole taxawlu sëriñ saaliw taxawlu naa yal na sëriñ Tuubaa defar sunuy mbir baatinan ak baana boo balaaw biim li Muusa ànd ak sëriñ nan tàggoog Muusa